Macky Sall a décidé xam na ni mu mën a def ba coow du jib. waa xam na bu duggoon taxi dem coow du am. bu duggoon ci beneen oto coow du am. bu duggoon ci sa oto ba am non mais lu tax du ci dugg. mais lu tax may dugg taxi mais dañ ko convoqué. mais mu yor ay oto mu war a dem moom mu ne dafay dem. waaw day dem ak ay cas day dem avec ses gardes du corps c'est normal. les hommes politiques que nous sommes mais man tey génn naa dem naa section de recherche pour soutenir Ousmane gisuma ko mais damay ànd ak su may garde du man su may garde ñoom ñëpp xam nañ que kenn amu ci instruction xool policier wala gendarme à travers kenn amu ko wante ay xawma ay marron du feu cotagul lekk ba mu jot ngeen xool ñii dañu yebaate dañu yebaate laa wax Sénégal troisième mandat dañ ci fiy tere. non cest dire yow da ah. ñëw ak benn discours troisième mandat. parce que moom mooy wax ci. donc wax ji du Ousmane Sonko troisième mandat parce que Ousmane Sonko non wax ji du Ousmane Sonko mais mandat. si Ousmane Sonko n'était pas présidentiable il serait pas actuellement à la section des recherches c'est parce qu'il est présidentiable loolu mooy dëgg te c'est le destin ko na ko ñëpp nangu. wax ci nag mooy lan Macky Sall na teg lépp ci kar ci ci kaw taabal bi képp ku bëgg a bokk na bokk na bàyyi ay caaxaanam ay filtrage ay parrainage ak yu mel noonu parce que moom bokku ci. maintenant si les Sénégalais choisissent Ousmane Sonko ñu xam ne ils ont choisi Ousmane Sonko wante man suñ ci eggee moi tout le monde connaît mon choix et je battrai campagne pour Khalifa Sall et Khalifa Sall doit participer et il doit compétir au même titre que Karim Wade loolu mooy dëgg. d'accord moom doo ci wax. accusation yi plainte bi. nga xam ne moo indi coow li. ay accusé ko man nga ma may ma jégalu nag ma njëkk jégalu euh, téléspectateurs yi ku ma man 3 heures du matin ne ma dañuy accuser Papa Ngagne de viol mën na la mënul nekk il est jeune et il est beau et il porte des costumes près le corps mënul nekk Ousmane Sonko Sénégal mën na def lu nekk soof siif doomu jàmbur mënul nekk parce que dafa am lu mënut nekk dooma woo tey nga ne ma Youssou Ndour dañ ko téye parce que dafa siif doomu jàmbur mënut nekk fii Sénégal c'est pas possible parce que yàlla moo ko may nañu wax nit ñi lu ñu mën a dégg viol amul. non non non non non non viol amul. Euh, viol amul lu fi am c'est un euh, complot. non non non non xoolal. fan nga mës a gis lu la yàlla mën a may di nga di nga romb loo moomul. lan loo ma ak lu la yàlla mën a may ci àddina. mën nga romb loo xam moom loo da nga mës a gis yow jigéen bu yàlla may xel muy toog ñu koy siif benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon. ba soi-disant ba soi-disant mu dem gendarmerie gendarmerie ne ko na nga demaat ñu siifaat la nga indi ay preuves. respectons les gens. non non non tout de même non il faut respecter les gens c'est ici sur la TFM la ñuy taxaw fii mu nekk moom il a la preuve que dafa dem gendarmerie ñu nekkoo ko damaat damaatal fu nga jógee ñu siif la nga indiwaat ay preuve te procureur waxu ko fii ci TFM la ko waxee Pape Pape Sénégal on traverse des moments très difficiles nañu bàyyi caaxaan bi mhm. Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat suba mag la na bàyyi lu mu nekkee rafetul te na soraale ëllëg du ndekki du añ du reer wante du jaru suur la. waaw mais mais Barthélemy yow fan nga teg di di wax toujours ci troisième mandat bi alors que président déggoo ko fenn mu wax lu jëm ci loolu. li mu ci waxoon loolu la ci wax. <coughs> Pape ba léegi de amagul lu ma waxagum Sénégal ci mbiru politique te gars yi gisaguñu ko mais saa yi ma koy waxee dañu ne bon bax lu muy wax ni c'est trop gros mënul nekk nee naa leen 2019 naa ni ne waa ji namul organiser ba tey amagul élection. mën na leen euh, dialogue politique bi ay caaxaan la fan la mujjee gis ngeen dóor katu marto yi fu ñu jëm donc Pape man man su nekkuloon tey troisième mandat walaay du ma toog ci plateau bi te nii laa koy téye ba Macky nangu yàgg ci troisième mandat bi parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire lu tax ngay jàpp Ousmane Sonko lu tax bëggoo organiser élection municipale fii biir Dakar lu tax nga nga bëgg a nommer maire de Dakar par décret présidentiel yi moom bu ko ko bu ko jiiñ bu ko ko bul wax ni moom moo ko organisé wul. ça tu as raison. non bu ko ko bu ko. non kooku moom Pape waaw Pape Pape tu as entièrement raison. Okay. parce que lu Macky Sall def il l'a fait avec la complicité de toute l'opposition à la limite parce que ce dialogue politique ils auraient pas dû y participer dañ ko jox. une opportunité bu mu génnee élection 2019 pour ne pas dire hold-up électoral 2019 pour gagner du temps fan la mujjee yéen gis ngeen dóor katu marto yi nu ñu def suñ mais suñu ko woon doon vous avez vous avez tous vu vous avez tous vu avec l'argent du contribuable. mooy dealer politique yi nga doon wax. ah de vulgaire dealer de de vulgaire dealer mais nag deal bi bii nii bii non bii du jàll Ousmane mën nañ ko téye mën nañ ko jàllale wante du jàll te Macky Sall su moytuwulee rakkam mooy wax ak moom na moytu bañ dégg Macky dégage parce que bii du jeex mandat bi du jeex. mais euh, Barthélemy. waxoon nga ko waxoon nga ko ci Xalifa ah. Sall li ngay wax nii. non non li ngay wax nii waxoon nga ko ci Xalifa Sall. mais menace yi ngay def nii. menacé wu ma kenn. si non moi je constate non je constate j'analyse je constate. mais waxoon nga ko ci Xalifa fan la mujjee. Xalifa Xalifa une fois de plus. je reviens à ce que j'ai dit yàlla suy dafa ni ku yàq. lu def na ñuy def ci Xalifa ñu ne boobu boobu euh, évacué nañ ko jeex na ñu indi bi waaw ah waa nañ dem nag lu ci kanam daaw li bët Pape su amee ay mbokk na mbokk mi wax ak moom troisième mandat dañ ko fiy tere te Ousmane Sonko nañ ko bàyyi bàyyi waxu caaxaan yu ñuy wax parce que au Sénégal il n'y a qu'un seul violeur c'est celui qui viole la constitution actuellement du Sénégal et qui viole les droits des Sénégalais Sénégalais bu ñu convoqué tribunal mu dem tribunal tu con tu violes mais article huit de la constitution mi ngi ni article huit de la constitution mi ngi ni nee na liberté d'opinion liberté d'expression liberté de la presse liberté d'association liberté de réunion ak liberté mais fan la ñu mësee gis Sénégal liberté de la presse article huit constitution moo ko wax assemblée nationale plénière débat ouvert au public nga ne presse bi du fa dugg. tu es un violeur de droit. xam nga Barthélemy tu es le seul violeur ici. waaw décret bi ministre de l' intérieur def par rapport ak la pandémie gis nga ko. ban décret cest à bul indi manipulation. tere nañu rassemblement yi muy Dakar muy cees donc même bu fekkente ni constitution bi lii la la jox. Hmm. décret bi lii la la wax da ko war a appliquer pour une durée xam nga loolu. un mois renouvelable loolu la ñu def mais nga respecté ko mais bul ne ma constitution bi lii la la may mais décret bi lii la la xañ da ko war a respecté aussi. ban rassemblement ngay wax noonu. mais moo xam bu fekkente ni bi ngay wax assemblée nationale aussi. non presque hmm. gën a bari à l'assemblée nationale et autres. Hmm. li nga wax aussi ci liberté la certes. Ouais. Ah. mais parfois aussi dafa am ay limites mooy décret bi ñëw freiné ko nga respecté ko après mu jàll. te xam nga ni cause bi xam nga ko bu baax c'est la pandémie. c'est la pandémie. waaw. avec 200 000 doses qu'on nous a vendues et c'est un don Pape bul ma wax lu ci dóor katu marto yooyu dama ne xam nga wax ci lan la pesum kanam pesum kanam borom a koy fajal boppam Macky Sall est dans une logique nous sommes dans une logique comme Sénégal ñu naroo wax ñeneen ñoom du ñu wax ne ku nekk dem daxi wër sa kam mais nag lu nga xam ne ni moo tax ma am ci mbégte mooy ceux qui sortis dans la rue sont des citoyens. ñu ci parti politique si vous voulez nous faire croire à nous. mais donc Barthélemy li nga gis nii ñu taal ay. citoyen loolu da nga koy apprécier. nga wax loolu da nga rafet rafetlu violence bi nga gis nii da koy apprécier. non li nga gis nii. vous voulez que je reprenne les propos de Macky ou bien. non waxuma non dama ndaw li nga gis yow. lan laa gis fii. non li nga li nga gis nii ci violence. lii dara c'est le début du commencement ça c'est rien du tout. je vous ai dit qu'on est dans le combat nous on est dans le combat ay ay say say frères say sœurs ñoo fay liggéey waaw même au delà de de titre bi au champ wala total wala leneen mais xam nga ni mais ay sénégalais ñoo fa nekk di liggéey c'est très bien on les encourage mais la lutte continue et seule la lutte libère et on se battra mais loolu ngay loolu da nga dama ne Papa Ngagne waxoo ak Gune Barthélémy Dias ngay waxal dinañ xeex bu dugg boîte vocale Macky Sall troisième mandat dañ ko fi tere xanaa déglu leen lu ñu leen wax troisième mandat dañ ko fi tere su ngeen waxoon tey makisal Sall balaa minuit doo bokk ci troisième mandat bi léegi Ousmane ko génne léegi Sénégal am jàmm troisième mandat dañ ko fi tere te pétrole bi ak gaz bi du moomeelam c'est pas parce qu'on doit signer en 2025 que tu considères que yow yaa nara signé yow ci mais le pétrole et le gaz les recherches dañ ko commencé sous Abdou Diouf fekkeewu ko sax. mais Barth Abdou Ablaye Wade ñëw def ci def ci ay jéego yu am solo. fekkewu ko yow nag nag foog ne ni que tey da nga nar a toog au pouvoir te tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas signé ces contrats tu ne partiras pas. mais Barthélémy mën nga ma wax. Hmm. ci une plainte déposée par une citoyenne ak benn citoyen lan moo fi indi Macky Sall ak troisième mandat. mën naa est-ce que mën naa. mais lan moo ko fi indi. mais tey Sénégal tey Sénégal ñaata plainte pour viol ñoo dugg ci tribunaux yëpp lu tax kenn du ci wax nee nañu affaire privée du noonu. dañu ne affaire privée la ñoom ñoo ko wa waaw mais affaire u privée mu nekk une histoire de viol pourquoi tout l'APR doit se mobiliser pour parler mais xanaa xale bu jigéen bi Adji Sarr xanaa amul ay mbokk. parce que Ousmane Sonko moo ci dugal seen leader. moo kan mooy kan moom Ousmane Sonko moo ci dugal seen leader. moo taxaw ko nommément ni yow la. mais parce que complot bi yow yaa def. le complot est flagrant man j'ai j'ai dénoncé le complot avant Ousmane Sonko dans les premières heures j'ai dit que ah, foofu nga yem. de yàlla moo ci foofu. non demuloo tuddoo Macky Sall ni moo ko def. comme ni ko Macky comme ni ko Ousmane Sonko defee mais complot yàq ni mu ko nommé. non mais yàq ni mu ko ni mu ko ni mais yàq yemul ci loolu tudd ministre de l' intérieur am. <laughs> mais Pape tamit Pape Ngagne le ministre de l' intérieur même su ma ko jéppee mais moom kese mënul comploter il n' a pas ce pouvoir le complot se fait au palais. wax nga ci léegi nii ay des maisons de responsables politiques qui ont été agressées qui ont été attaquées mais ils sont connus notoirement pour être de vulgaires gis nga xeex bi dinañ ko xeex on vous a pas confié notre pays pour ngeen nekk fii di comploter di di nekk fii vous vous imaginez ba ci ay coronavirus nit ñi ñu ngi dee ngeen ne da ngeen di ñu facturer benn don dose yi ñëw vous commencez soi-disant par les autorités mais dem leen ci askan wi ngeen jàppale ñuy ñu nekk à risque des personnes âgées.